Euh, merci beaucoup. Euh, C'est Madame Thiao Aombang, la directrice de la promotion de la bonne gouvernance au niveau du ministère de la Justice. Donc, dans le cadre du suivi de l'axe 3 du plan Sénégal émergent et du renforcement du leadership des femmes dans la gouvernance locale, la direction de la promotion, des droits, de, de la, promotion de la bonne gouvernance a invité les élus locaux des communes des cinq départements de la région de Dakar pour les formés sur les principes de bonne gouvernance et des droits humains. Nous allons tenir cette année trois sessions de formation. La première session donc, que nous tenons aujourd'hui va porter sur les principes de bonne gouvernance, l'introduction aux droits humains, mais également la gestion axée sur les résultats. D'autres sessions vont suivre, donc, où nous allons soulever et traiter les thématiques telles que la lutte contre la fraude, et la corruption, mais également le budget sensible au genre, mais voir également la place de la protection des enfants au niveau de la gouvernance locale. Donc cette activité, c'est une première activité concernant notre programme, notre plan de travail annuel que nous comptons dérouler donc, euh, sur toute l'étendue du territoire national. Donc cette activité pour la région de Dakar, donc où nous avons une par commune pour les cinq communes, donc pour les cinq départements de la région de Dakar. Et cette activité va également être disséminée pour l'étendue du territoire, donc euh, peut-être dans les prochains mois. les communes ciblées donc on a les 53 communes des cinq départements de la région de Dakar. Euh, donc il y a la 53, les 19 pour Dakar, donc le département de, de Guédiouaï, Pikine, le département de Rufisque et le département de, de Kermassar. C'est-à-dire leur former. Euh, si euh, vous travers les lignes directives euh, que nous avons au niveau de l'axe 3 euh, du PSE, qui l'équité et l'égalité du genre, mais également le rôle important des collectivités locales, c'est essentiel, nous, acteurs de l'État, chargé de la promotion de la bonne gouvernance, de les initier sur les principes donc, qui peuvent les appuyer durant leur mandat au niveau des communes. Mmh. Ah. Euh, maa ngi tudd madame Thiaw Awa Mbengue man maay directrice de la promotion de la bonne gouvernance au niveau du ministère de la justice boo leen jëlee PSE au niveau de son axe 3 mais également bu ñu xoolee di dañoo war a euh, def li ñuy wax le renforcement de leadership des femmes au niveau de la gouvernance locale c'est important que nous à notre niveau au niveau de la direction de la promotion de la bonne gouvernance ñu jël si nga xamante ni mooy cinq départements yi nekk ñoo xam ni ñoo nekk ci région de Dakar département yëpp ñu jël ci commune yëpp benn représentante une femme mu ñëw représenter commune am ñu former leen sur les principes de bonne gouvernance et des droits humains lii ñu sumb nag mu nekk session de formation pour année bi pour la région de Dakar ñett la donc on est à trois niveaux de formation trois sessions première session bi moom la ñu def tey li ñu def tey mooy dinañ leen wax lan mooy ak ak yelleefu doomu aadama wax leen lan mooy bonne gouvernance mais également renforcer seen capacité seen capacité sur euh, euh, la gestion axée su les résultats buñ ca jógee dinañ leen defaraat beneen euh, formation boo xamante ni dina laaj lépp loo xamante ni dafay lutter contre la fraude et la corruption mais dinañu xool yeneen thématique yoo xamante ni c'est lié à la gouvernance à à à à à plutôt euh, nan la ñuy xoolee la place de la protection de l'enfant au niveau des communes mais également le budget sensible au genre léegi lii nag dañ ko commencer du yem rek région de Dakar dinañu xool après nan lañ koy appliquer pour les autres régions donc au niveau de l'étendue du territoire Euh, commune bi mu concerné mooy commune yëpp yi nga xamante ne ñu ngi ci cinq département département de Dakar Guédiawaye Pikine Rufisque et Kër Massar donc commune yooyu yëpp koo xamante ni envoyé nañ leen invitation jël leen pour ñëw tey former leen sur les principes de bonne gouvernance et des droits humains et après formation bi dinañ leen defar évaluation et dinañ leen garde ba nga xamante ni dafay doon benn groupe boo xamante ni buñ ci jógee dañuy mettre en place un réseau des élus locaux pour promouvoir la bonne gouvernance waaw donc dinañu tax ñun suñu liggéey ñu mën ko di ko gën a mën a saytu ci commune yi waaw ñu mën ko def tey nag protégion de Dakar waaye dinañ ko jël yóbbu ko ci yeneen région nga xamante ni moo wër Sénégal merci beaucoup